li tax ma ne leen lislaam bi la fi nekkaloon dañoo xëy benn bis rek mu taal oto ne topp leen ma ci fajar gi ñu topp ko dawal baag si ci kër Senghor daare ñu wàcc sëñ bi wàcc sëñ Ousmane wàcc sëñ Modou wàcc ma wàcc El Hadj wàcc daam Dramé wàcc nu dugg ci salon bi ci palais bi buñ diggee sëñ bi toog ci kaw nu bëgg a toog ci suuf mu ne déedéet toog leen ci kaw barab bu ne luy seen aada bañ koo def mooy ñàkki gi te ñoom seen aada mooy ku ne toog ci kaw suñ mun ne kon dem ca bee daan dem ca salon bee toog bàyyi ko fii bi Senghor dikkee nañu indi ndékki li ñu ñaari góox la naan na ko ma waxtaanu ma wéetuma ak yow li ma lay wax ci kanam ñii laa la koy waxee Cheikh si laa bëgg nga génni ko moom dong ma indi waxoon naa la na la na nga fonk diini ji ak lislaam bi te Seex Tijaan ci kenu yi la kon kenn waru koo téye moom dong moo indiwoon maa ngi dem nag waaye na daal di génn nu daan ne ñokket jiitliwaatu moom baag si loolu sëñ Fallu def na ko moo tax ma ne la lislaam bi la fi nekkaloon waaye nekkalu fi woon yoonu murit diini lislaam la fi nekkaloon waaw loolu def na ko nekkalu fi woon itam kenn ku dul yoon wi ak sëriñ bi ñu jàpp Abdou sax njaay àtte ko mu xëy woolu Senghor mu ne ko Abdou sax de mooy sëñ Daaru Assane sëñ Daaru Assane mooy yoonu murit yoonu murit xajul ci kaso kon nag Abdou sax na génn na génn waa ji xam nga loolu dana am sax te Senghor du ko yëg Senghor laaj Alioune Badara Mbengue boobu mooy ministre de mu ne ko wax ko ko mu ne ko sëriñ bi kooku loi bi moo ko tëj mu ne ko loi bi du alxuraan ba mënee su koo soppi noonu dajaloo woon rek ne ko def nangam nañ ko def nangam nan dajaloo waat génne ko waaye sëñ Daaru mooy yoonu murit te yoonu murit xajul ci kaso bi ñu génne Abdourasaax talaata maag sëñ Modou nu ànd dem seeti Abdourasaax mu ne ko man atte woon nañ ma bàggal di ma enquêtaat sëñ sëñ Modou ne ko da ngay génn sëñ bee ko wax Senghor nee na sëñ Daaru yoonu murit te yoonu murit xajul ci kaso waaw nga xam ne kon nekkalu fii ñi ko yaakaar wala mu nekkal fi ñeneen waaw yoonu murid yoonu lislaam rek la fi nekkaloon lépp lu rëq ci diine ji walla ci kii bi rekk dana dana taxaw faj ko ba ba mu àgg